mbokk yi euh, suñu seetloo ci semaine bii ñu génn daañu gis ne njiit yi ci àdduna bi à l'échelle mondiale ñu ngi daje ne dañu bëgg wut solution ci lu fiy jëlee feebar bi yal na yàlla may leen buntu e bu ñu amee ndam ca loola ñuy wut ba sax ñu ngi tudd ay vaccin ne xëy na bu ñëwee mo man dara ci covid 19 bi suñu président yi yaakaar naa bokk nañ ci ñinga xamne téwé nañ ndaje yoyé and ci loolu ñu fa fas waye la ci gëna raglu moy du tambalé bismillah ci seeni ndaje du tuddu yalla ci bir ndaje ma du dem bay jéxalitam tuddu yalla yàlla door a tasaaroo te daw kat mu ngi ci loxal yalla subhanahu wa taala ñu desal ko gannaaw lool motax ñun amuñ confiance ci ndaje yoyé amuñu confiance mukk ci vaccin yooyu ñu nuy dig ndax dañoo dañoo dëddu borom asamaan ak suuf te ba tey jii booleeguñ ko ci seen programme ba tey jii xamaguñ ne sunu mooy yàlla ak sunu ndëng ak daganal lu yàlla xaraamal te ñeme ca lool moo waral xeeti mbas yii danañ koy faral di wax toujours ne ma waqaa balaaun illa bi dan wala rufia illa bi tawba njiit yu kalifa yu kawee nonu di ay njiiti rew waron na fuñ daje bala ñoo def dara tudd yalla subhanahu wa taala mi leen bind ñu nekkon ay toqi ma niyu mënu ñu mu xëy jox leen nguur tek leen ci kanam xéet yi jox leen man man jox leen ñu dessal ko gannaaw wan ko gannaaw ignoré ko ba lepp luy ordre diine ñu dessal ko gannaaw ne yo dañuy andi nouvelle ordre mondial dañuy andi la gouvernance mondiale ci musiba rek lañu jëmé musiba rek ci la jëmé aduna bi mbokk yi man ñun bala ñoo gëm né njiit yoyu yene nañ ñu jamm nañu fi jëlé seen usine yi nga xamné ñoy produire cigarette koku mom man nañ ko xam nga euh, vaccin bi ñu ngi naan dana faj ak du faj amna sax ñu dem ba jaboliser ko ne dé dé day andi musiba waaye fi yi produire cigarette day day pour nit ñi am confiance nañ ñu fi jëleel usine yooyu ndax usine yi la muy ci ay doomu aadama ak salaire yam leen di fay li muy lor jaru ko lor gee cigarette millions yi chaque année selon l'OMS muy l'organisation mondiale de la santé ñoom day ñoo ko wax ñoo ko bind noo mën a toll nag jaamub suñ borom nga koo mën a doon jaamub suñ borom nga nekkalub général ca armée ba nekkalub euh, euh, euh, ministre ca ministère ba nekkalu gouverneur ca gouvernance ba nekkalu maire ca mairie ba nekkal président ca pale ba ñun ñëpp ñooy toq toqi ma néew ñooy liir ya ñooy néew ya ëllëg kon دولي جن في ريروك سن borom أمو في أجو في هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين